affaire bi daal yomb naa àtt nabu nit du rëy génnal nga def vidéo nga jéggalu Fatoumata Ndiaye Fouta Tampico yow nga def vidéo nga jéggalu Seydina Ousmane Sonko ndax waxoon nga ko fi wax ju rëy ju ñaaw te mu am jabar ak yaay ak i doom yaa koy fàttale fàtte xaju fi nabu nag du ko supporte parce que man dama jàpp ne liñ ma wax ne moom la nabu wax na mu ku am live boobu na ma ko envoyé parce que man seetaanuma live fu Nabou ah man dama doon délivrer ci suba gi rek naan Nabou yow xamee nañ la tooñ Fatoumata Ndiaye Fouta Tampico détails yi dafa leer kan moo koy jaay crème de visage ok ñu vocal ma ne ma defal nàkk ci wax ji parce que da doon def live tudd turu Fatoumata Ndiaye Fouta Tampico ne wa ki doon violé taalibe yi su bëggee caga na dem jëli Faatumata Njaay Fuuta Caam ko caga bu mag la ak rang tudd seen tudd non nit ku jël ay peram sañ ta loolu defe naa na boo xul nag bu nabu jéggaloo ba pare